assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu jullit yi àddina bi yépp di leen ndokkeel ci bis bu màgg bi yowmul jumuatil mubaarak bis bi nu sunu boroom subhaanahu wa taala woo ngir nu dajaloo ci benn néeg ci néegam yi ngir joxe benn farata farata joo xam ni li muy wundu bari na wundu na def ndigalal borom bi subhaanahu wa taala ci wuy ko ak jaamu ko waaye wund na bennoo julit yi ci benn jubluwaay ak ni ñu teqali ci ay dëkkuwaay teqali ko ci ay daraja teqali ko ci ay xam-xam loolu yépp nag bis bi dana leen dajale ci bennum néeg ñu toog benn jitaay bokk benn jubluwaay gi bokk genn kàddu bokk fu ñu jëm loolu nag lenn lu ko gën a tegtale waxdatul muslimina amul kon juma doonte ak jaamu yàlla la waaye mi ngi jàngale nu jullit yi war a sappee doon benn ci jëpp anam loolu lay tegtale nii kon noon ciy ndokkeel ñépp di ñaan sunu borom bi subhaanahu wa taala mu nongul nu nongul leen fekke loonu it ay jumaa yu baree bari ci darajay weer yu tedd yii nu nekk xam ngeen ni jamono yii nu nekk noo ngi ci weer yu ñuy wooyee ashurul hajj bu doon tey libéré nañu nit ñi waxtu wii ñu ngi wax naan avion sàngam heure sàngam lay dem waxtu wii dana fekk dëkk ba fees dell ngir lan wuy si woote borom boobu subhaanahu wa taala waaye ci nattu yàlla tax na loolee amatul waaye bu loolu amul nag leneen sës na fa mooy jurit yëpp dañoo bëgg joxe seen farata am ci yéene waajal ko ñi ci am kartan jóg ni ñu ngi koy defi tey nag am na gàllankoor ba mënuñu koo def waaye nañu am xel mu dal ni yàlla mi doon bind tuyaaba dana continuer di leen bindal tuyaaba ci yéene yu rafet yooyu nga amoon ba takkoon jaam bi ba mu xamee ni naroon naa dem mbaa waroon naa yóbbu nit mu dem yéene ju rafetam jooju mu amoon te yàlla dogal tànk-tànki jamono dox digganteem ak moom na xam ni téye nañu ko ci mu joxe loola waaye ka doon fay moom génne woon na budget bi ba àggal te doog ko delloo dana ko jox seen waroom kon nag loolu day li muy tekki yéen ñi amoon yéene yéen itam ci dem Makka amoon yéene yóbbu nit mu dem Makka ngalawaay yéene jooju bu mu deñ la nga yéene woon a jox waa jooju nga yërëm ci mu joxi farataam ba bisub tey bul ca génn jëlal loola jox ko ko mu def ko feneen ndax jamono boobu tuyaaba ngay wut kon yool ba nga waroon a am ci ajali ko màkka continuer nga di ko am yool bi nga waroon a am ci dem màkka di nga continuer di ko am kon tey bu kenn tekki ngembam waay yéenéem naroon na ma yóbbu màkka yow mi yow naroon naa laa yóbbu waaye mbas mee tax déedéet alal ji nga ko doon yóbbu mu di ko yóbboo màkka léeg-léeg sax aajo na ko ci këram lu ëpp yoonu màkka kon ngalawaay jox ko ko mu dunde ko jox ko ko mu àggale jànkam bële jox ko ko mu àggale naalam wu tëwee bu boobaa am nga tuyaaba joo xam ne ni mooy dem màkka te ñaanal ko yàlla jamono bu aj ubbee fekk mu mën a yóbbu boppam te loolu yomb na lool kon mën nañoo téye yittey nit ñi ba duñu dem waaye yéene yu rafet yi moom bu ko kenn téye innamal amalu binniyaat yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax nee na bu ngeen yéenee rafet rek ma fekk si leen ci loolu la yàlla wax loolu mi ngi ko wax bis ba keroog bi ñuy gàddaay di dem makka jóge makka jëm medina ñi am pas-pas bu wér ak gëm gu wér fu leen yonent bi sóob ñu nangu ñooñu nangoo ànd ak moom di jéggi xeer yi di jéggi tàngoor yi fu ñu jëm ngir rawale seen diine ci barab ba diine amee jàmm muy dëkk bu ñu wooyee madinatul munawwara loole ba mu demee ba ñu fa àggee fekk nañ fa xol yu yaatu fekk nañ fa dof dënn yu ubbeeku teeru leen teral leen teraanga joo xam ne ña déebul woon bañ ko déggee dañoo daal di fabu ni nan dem ñu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gaa yaa ngoog yaa ngi ñëw ndax yëg nañu leen fi am ci teraanga ci ay tool ci ay soxna ci ay kër ba ñu ngi ñëw yonent bi dina ñëpp ñëw yéene yi moom yàlla mi ko xam mi nga xam ne moo nekk ci xol yi xam na lépp fa man kaanat ijratuhu lillahi wa rasuli fa ijratu ilallahi wa rasuli wa man kaanat ijratuhu li dunyan yusibuha aw imraatin yankawuha fa ijratu ila ma ajara ilay yonent bi ni ku ñëw ngir am lii ngeen am bu fekkee yàlla rek a tax ak nu mu mën a demee da nga am yàlla waaye ku gàddaay nag ngir koomum àddina moo jàpp ni di nga ko ci am wala banneexu àddina boo jàpp ni di nga ko am boo dikkee yàlla jox la loola te mu yem fa loolu yi nag moo ñëwaat tey kon ñi amoon yéenee dem màkka nañu xam ni yéene yàlla dina ko àggale ñi amoon yéene yóbbu nit makka nañu àggale yéene yi ndax alal lañ daan joxe pour mu dem alal jaa ngi fi nañ ko continuer jox ko ñooñee loolu mooy xéewal gi bu boobaa mën na cee jariñu lu baree bare ndimbalante wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal odwaan yàlla moo nu digaloon ni na ngeen di dimbalante seen biir te ngeen di dimbalante ci mbaax waaye bu leen dimbalante ca safaan ba safaan bi kenn waru cee dimbalante te nit ñi ne dafa mel ni alal ak min zalik dafa mel ni jamono bii leen la yàlla ne woon bu ko ci kenn dimbalante foofa la ñuy dimbalantee léegi foofa la ñuy dimbalantee loola feeñ na ci phénomène bi nekk ci àddina bi fii mu ne te di ko bëgg a tas di bëgg tas bokk gi di bëgg a tas diine ji muy li ñuy woye réseaux sociaux yi xoolal niñ ciy dimbalantee alal ismi wal udwan jamono boo génnee benn audio wala benn vidéo buy xas doomu aadama buy yàq doomu aadama balaa ngoon a jot dina daj fépp te jamono boo génne woon benn vidéo buy wax nit ñi nu ñu war a gëmee yàlla buy wax nit ñi nu ñu war a jàppe nu ñu war a jullee nu ñu war a woore nu ñu war a asakaare nu ñu war a woore aj di nga fi toog weer téeméeri duñ ko liir kon laa yataawanoona alal birri wa taqwa bal yataawanoona bil aks kon li ñuy dimbalante loolu yi musiba la mbooleem li ñuy def musiba yi mas a am ci àddina ñu ngi wax ay mbas waaye mbas mu gën a rëy loolu amul te kat xiiwal gu rëy ci nekkoon bu fekkoon ne xamoon nanu xiiwal gi nu yàlla indil ci loolu ñuy wax réseaux yi li nu ci yàlla indil ci xiiwal portable yooyu nu yor nga xam ne yàq na sunuy nelaw yàq na sunu jaamu yàq na sunu dund te wallahi li ci nekk ci xiiwal bu nu ko jariñoo wan kenn du xam na mu toll xoolal dongab daara bii nga xam ne am na téere bu mu doon dégg mës na mën a am njëg gi tey mu yor paquet bu tuuti boo xam ne bu ko tere sarsee rek téere bi génn mu mën koo jariñoo loolo yóbbu ko ba ëllëg mu mën a taalib ay téere ci boîte bu ndaw boobule waaw loolu teen koo jariñoo waaye lu ñu koy jariñoo dégg nga li diw wax diw yónnee ma ko dégg nga saaga wi diw saaga diw yónnee ma ko léeg-léeg sax bu ñu amul saaga woowu ñu jéem a toppi kole ba am luy niroog lu bon boo waxee ay wax wax ji lu mu rafet rafet benn baat boo ca boo ca doon wax du doon baat bu ñaaw dafa am foo ko jëmale ñu ni ko dagget bu ñu ko daggee teg ko ku dégg loola danaan waa ji da doon saaga te fekk na da koo jukki rek nit ku bon nag mooy jukki nit ku bon mooy jukki loolu amoon na boo ma gis ci bindkat yi ñi nga xam ne nii dañuy dal ñaare ay nit rawatina sunu anam gii nu nekk di tasawuf mboolem ñi koy raddu mboolem ñi koy delloo dañ leen di duural ci ay terme di leen duural ci ay faqaraat yoo xam ni dañoo tappaleeka dajalaatu rekk ba mu niru saaga dajalaatu rekk ba mu niru lu bon ñu génnee li ne li ñuy def lii lañ ciy jublu ñooñu buñ ñëwoon tey dugg ci jumaay ji nii mu yaatoo nii mu feese fa tabarakallahu ni sàppe yi jekke bu boobaa du ñu génne loolu waaye dañuy dem ca ginnaaw jumaa ja seet waaju yi fo waaju yi caaxaan ñu foto ko ni lii mooy jumaa ja loolu mooy copie yu bon loolu yi nag lañu jumtukaay boobu indil kon kii jëfandikoo jumtukaay boobu ci googu anam lañu ko doon tere démb lépp def na ko jikko yu bon ak kabaayir bakkaar yu mag yi ñu doon yi nu yàlla doon tere muy jëw muy rambaaj muy fen yooyu yépp tey jël nañu jumtukaay bi mu gën cee am place fu ñu toll ñu ngi jaxase nit ak nit ñu ngi toxal yu bon lu wax ji baax baax bu doon junni yu baax bu ca benn génnee boo xam ne mënees na ko utile ci bon boobee moom la ñu naan ju xeet ni déggal waa ji li mu wax mbokk yi ndax jumtukaay boobu jotul ñu jariñoo ko ci sunu lislaam ngir dëggal wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamu ni wan inna allaha yuayidu umura haasa diin bi rajulil fajir nit ku bokkul ci diine léeg-léeg mën naa defar loo xam ni day jariñ diine te lii bokk na ca wax naa la li nga ci mën a am ci xam-xam li nga ci mën a am ci téere li nga ci mën a defaruk bokk goo xam ni waajaa ngi ca Amérique nga mën a defar bokk gi fii ci Sénégal waajaa nga feneen nga mën koo defar jumtukaay boobu lu rëy loolu mu am lu tee ñu utiliser ko ci waaye safaan ba mbokk yi noo ngi ciy rambaaj mbokk yi noo ngi ciy wax lu amul mbokk yi noo ngi ciy tas ak bokk mbokk yi noo ngi ciy xeexale aw nit ndax loolu lanu yàlla digaloon déedéet yàlla danoo digal nuy def lu baax di wax lu baax di yéenente lu baax ci loolu la ñuy amee njariñ tey ak ëllëg te kii nga xam ni moom la wax ni mooy sunu kilifa mawlaana cheikhul xadim radiallahu taala anhu ci loolu la nekkoon ci loolu lañ doon digal loolu la daan ubbi fenêtre ba ca jàkka ja di ko tombal mag ña di leen ko wax di leen teg ci njub ba loola yóbbe woon leen ci njub njubin woo xam ni ka jàng ba jeexal téere yi ak ci firul iji ñoo yem ci jaar ci yoon ndax lan dañoo dégg ndigal baat bu sëriñ bi wax ni def leen baatuñ ko lu sëriñ bi wax ni bàyyi leen defatuñ ko loolu mooy topp ndigal léeg-léeg nag baat boobu dañ koy firi dañ koy tënkiroo rek ni murit ndigal léeg-léeg waaye lan mooy ndigal kenn du ko tas kenn du ko tas kenn du tas itam kan mooy digle kan mooy digle mooy lan bu ñu nee al amru hunaka amir am na ku war a digle ki war a digle kan la mooy borom yëf yi moo war a digle de ki ci des lu mu war a def mooy jottali waaye kenn du sos ndigal ku sos ndigal dañ ko war a bàyyeeg yow ndax yow moo mooy yëf yi moo mooy yëf yi ci moom yëf yi moom li mu digle nee na fang fangaaral mu ngi téerim yi mu bind ko boo ko xamee baax na boo ko xamul doxal bala ngaa def cent mètres gis ku ko xam mu wax la li sëriñ bi wax bànneex rek leen topp waaye ku bëgg a xam-xam kenn ci yéen bu bëgg na dem Amérique wala mu bëgg a dem Allemagne mosu faa dem balaa jant bee soo mu wëri ku ba ma sa dem mu wax ko nan ngay def ba dem yaa ngi wuti xam-xam fa nga jëm yaa ngi wuti xam-xam bu la ko waxee ba noppi nga ni ko ndax xam nga fa kenn koo ma mën a booleel yaa ngi wut xam-xam waaw tukki su gàtt si soriwul boo àggee mën ngaa wàññi ko lu tax nga di ci gëstu gëstu bu mel noonu te tukki bu yàgg bii bii nga xam ni boo tàggoo dootoo dellusi si ki nga fi bàyyi dootul a gis nga wéet yow kenn ci diggante xur su ndaw nga nar faa jëm doo laaj foofa lu fa nekk jëkk te doo dellusi de doo laaj sëñ bi doxal ay kilomètres ngir xam alaaxira googu nu jëm lu fay musal nit yaa tey li ngay def de ndax fu gàtt fii de doo dem mukk te laajoo waa ji lu mu xaritoo xaritoog yow bu jàppoon ci sa loxo bii loo ko gëm-gëm ni ko kaay nu dem bala ngeen a génn ëttub jumaay ji nga ni ko fu nu jëm waaw fu sori foofee nag waa ji ni la jaaral nii rek te doo ko ni fu nu jëm doo ko ni fu nu jëm laaj ko fu ngeen jëm bala ngaa àgg laajal fi nga jëm bu dalee sam xel nga wéy bu dalul sam xel waññikul loolu la waxoon moo seriñ Serigne Touba doon nu digal ni bala ngeen a ànd nangeen ngeen ànd ak koo xam ni yàllaa ko ñor ci yàlla la lay woo ci yàlla lay digal ci yàlla la lay tere waaye bul ànd ak koo xam ne bànneexam moo ko tax a jóg wala tusaahib gayra man bihi tusaad aqlan wa diinan abadan tanal muraad nee na foo toog na nga fa am diine nanga nga fa am looy jariñoo waaye loo fiy def mu ni defuma fi dara foo dara néewul kenn du fa toog kon doomu aadama bu jógee day am yitte ci jëm fi dara nekk fi dara nekk nag mooy ñaxam foofa fa ñu jaaroon ba am loola foofaay jaaruwaay ba jaaruwaay bii ñu daan tudde ndigal du lenn lu dul li génne ci mbindum sëriñ tuuba démb ci laa mañam la noon ko doon dégg dem nañu ba mënatuñ koo dégg nettali yee jeex na ña doon nettali dem nañu te danoo gaaw a sos bu nettali bi dee dégg sax bu yàggeeg nun nu dolli ci yeneen ay safal ba dootul doon dara day daal di mujj aw doonub léeb nga delluwaat ca lemu bindoon lemu bindoon soriwu leen mi ngi fii jege leen lool yàlla dogal na tey boroom xam-xam yu baax yii ñu ngi yor jumtukaay bu ndaw boobu di leen sànni ay bind foo mën a nekk ci bi yaa ngi dégg nu tasawur tasawur si xaar lu muy firi yaa ngi xam tasawudu subaan lu muy firi yaa ngi xam masaalikul jinaan lu mu firi mais tee ngaa dagg sa dund gi dix minutes yoo xam ni bis bu nekk di nga ko sase diglu benn bayit ci mbiyu mbindum Serigne Touba waaye déglu benn nettalikat benn xisakat góor gu baax ga nee na saa bàyyi nee na saa nangam nee na mu dëppoo ak Serigne Touba jàppal bu dëppoowut ak Serigne Touba sànnil ndax du Serigne Touba kere ba Serigne Touba taxaw ci géej gi demul إذا ذكرت سالك المبيت وسالك الأمير والتثبيت تارت إلى الجهاد بالأرماح نفسي ولكن سب عن الماء إذا سكرت له néewul isa sakar naa dégg ngeen arab bu ñu doon mbooloo loolu lay wax waaye moom kenn la woon moom kenn la woon aya baxru waxit laa tusallis fa rabbuna taala ani taslisi akrim bihi rabba moom la woon waaye bokk yi kookii nag tey ñu bëgg ko indil lépp lu mën a doon nga def ca sa xelum bopp ak yëf yi ni ma ko yëgee looy yëg da ngaa yëg dara mënu laa dara yëgoo dara mbaa la ngay yëg yemale ko sa kër sëriñ bi li mu yor leeral na ko ba mu ni fang jëratul yëg lu ni fang la noon na dama tabaxub dëkk te dëkk boobu la ma fa bëgg mooy jàng ak jàngale jub ak jubale ak taxawal julli yi juróom wa asbitan fiihi jamaatan tuqiim asalawaatil xams dahban yaa akiim ñaanam googu de sëñ bi nangu na de waa ci ku mu nangoo ku mu nangoo waajee waa waaxu jàpp ba seel wuti jàkka ja nee na sëriñ bi sax ñaan nangu na waa ji lànk nee na ko sëriñ bi sag ñaan du ko bàyyi mu nangu du nangu sëriñ bi yaa fi doon ñaan naan jamaatan tuxiim lànk na bëgguma nga am ndam ci ni sama ñaan nga nangu na yaa ko wax yow mi demul julli ji yaa wax sëriñ bi ni ko sa ñaan googu nga ñaanoon bëgg mu nongu fas naa yéenee lànk kandaare ba doo bàkku ci sama kaw naa ma ñaan gi nangu na wa asbitan fiihi jamaatan tuqiim asalawaatil xams daaban yaa akiim mbokki jurit waaye nan nafaraat téere yi waay barki démboo njaay am na ku wax wax ju am maana bokkul ci yoon wi de waaye da doon dàggan seen teeg kenn ku nekk ci yoon wi waaye wax jëm wax dafa maa tiital te lam bëgg a wax ñëpp xam nañ ko daf ni moo bokk yi koo xam ni li mu bind waxagoo ci ab kilo looy wute loo ca dool yi xam nga bëgg a wax yéen a wax ni sëriñ bi nangami ton la liggéey waaw nangami ton nag comme jeexaloo kilo kilo bi looy wute ndooleent kilo laa wax de kenn ku ci mokkalub kilo amul kenn ku ci mokkalub kilo amul wax mbokk yi kon luy ndey sosaat leneen bàyyi diw nee na maam diw nee na góor gu baax wallaay góor baaxul góor baaxul de xam nga góor gu baax gi dëppoog li sëriñ bi wax góor gi baax mooy ki la nettali li sëriñ bi wax te sëriñ bi li mu la wax mooy li yàlla wax mooy li yonent bi wax du ñu juuyoo mukk abadan aqsamtu billahi inni li nabi abadan xillun wa xibun wa ma yabahu abaau nabiyuna al mustafa gayrul wara garadi fi kulli cheyin wa ma yabahu abaau lii lu ko gën a leer am na kii mooy sama soppe mooy rasulullahi bul ko laal de kenn ku nekk ci noonu ab soppeem boo ko laalee àddina tukki loo bëgg a jiiñ sëriñ Touba nga tuuse yonent bi bana la nga tuuse alquran bana la waxuma nag yàlla kon képp ko wax benn baat buy suufeel alquran wala muy suufeel rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa sayquna ahmadu bamba bariun mink génn na ci yow te ëllëg bu ñu lay dóor danaan na metti dafa bëgg xaritam de dafa bëgg soppeem de léeg-léeg yéen am ku wax luy niru ni dafa dal ci sëriñ bi kenn ku nekk foog naa bu ma ko fekke woon rey ko yaa gën a am pour la sëriñ bi kon ku dalub sëriñam bul ko fekkee rey la bu ko fekkewul xaar la bëgg a ñëw bu ñuy duma mu naan jërëjëf te gaa yi dañoo baax nag dañoo bëgg yàlla lool bëgg yonent bi lool bëgg àgg ci lépp lu mu def da leen di neex lépp lu mu def da leen di neex duma nit sax da leen di neex bu ñuy duma sax da leen di neex na ngeen bàyyi xeet ci loolu sab soppe bu la dee def lu metti doo ko yëg kenn ci yéen ba mu reeree ba pare am na séetam bu dawee fële fekk mu summeeku mu wadd cëppeelu ci biir bi mu tàpp tàppal raay li mu la def de metti na loo ko loo ko fayee raay ko loo tax da koo bëgg noonu nga bëggee sëriñ bi noonu nga bëggee sa sët bi ni sëriñ Bamba bëggee rasulullah yoo ko ëpp kon bul ko tuuse waay te bëgg àddina rek la daanu ko yëpp dañoo bëgg àddina wallahi al asim ci laa bokk nag bul defee dañoo daanul sëriñ bi de déedéet seen bopp la ñuy daanul dañoo bëgg wax ne waajaa ngi nii <laughs> sa waa ji de moom ak a foor ak gëm sëriñ bi mu daal di yuqeeku buñ koy jox dara jox ko ko buñ koy tàgg tàgg ko nga defee ni sëriñ bi lay waxal mukk ci àddina gafakaam lay waxal waxalul kenn gafakaam lay waxal xam na dëgg yu sëriñ bi wax waaye yooye dërëm du ca génn yooye kenn du ko wax kenn du ko wax boo ko waxee sax kenn du ko diglu bokk yi booy wax ci sëriñ bi ba yàgg waaja a yuuxu xàqtaay tàccu defal ndànk vérifier li nga wax ba xam Cheikh Mouhamad Lamine Diop nee na te kat moo doon bind nee na mësta dégg ci sëriñ bi baat bu jar xàqtaay